ñaa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan ma wax la li xew ci réew mi askanu sunu gaal gi yëgle kaay gi ay waay ñun fu nu jëm ak ñi nga xamante ñoo di samba si si kër yi yëgle kaay gi ne xoolal ma mineur bi rek 15 dong képp rek dong la am di ab xale bu jigéen fukki at ak juróom la am de jenn waay ponk lu magum jëmm ni fa nga ni dëng ni mbaam fa ne wan yegg ci kawam xale bi lànk kandaar bi laay fa baax nekkoon ma nga fa ma ngor ak jom am na jigéen ñu ko am ba nekk ni de xoolal xale bu jigéen bi am 15 ans bu ko neexoon lànk kandaar tax mu fente wopp la ni fin plat la wax étage ba la wax ni ci rib ci suuf ngir rek bañ ko ko yoole li nga wax ci mbaax yépp dëgg la mbaax a ngay am ba nekk ni waaye l'observateur yëgle kaay ni ma bonit dem mi ngi fi xoolal ma kii waa jilee takkap ñaareel bu yàggul dara nekk ak moom lin dem yel moo ndax kii daa woppam déet waa ji day bàyyi na fi aawam bàyyi fi am ñaareelam dem ca rakki aawam fa séen a wan a sëkk moom dal di koo violé mani la violé na xale ba la wax tey yor ñaari jabar bàyyi leen bu ngeen di sëy di yóbbaale ay gone yi jigéen seeni kër naan ay topp lu kenn xamul ndax wóorul dëkk bee doy waaye nag waa ji day wopp ba wopp jeex yëgle kaay gi ne nit du ko gën feebar takkum ñaareel nekk ci linde meel dem sëgg ci sa rakki aawo moo taxit day yëgle kaay gi ne ma da ne ay victime lañu dem nañ ba mënatuñu koo waj bàyyi ko seeta leneen c'est impossible ci ñoom yëgle kaay gi ne ma am na mille yoo xamante ne toll nii tembe dañoo engagé ci réew mi askanu sunu gaal gilee di njaayum sexe maa la ko wax jaay seen bopp leen gënal lu ñu man a am fi mu toll ni tembe dugg nañ ci ni sa mbax mënatuñu caa génn yëglekaay gi ni ma rawatina ca Kédougou nag lii mi kenn mënta wax lépp l'observateur yëglekaay ne ma kaay bul dem xale ba nga xamante ni moo di Mohamed bi nga xamante ni moom la ñu sàccoon ba yàgg nu gisee ko ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar kaay ma wax la nouvelle vie bi mu dugg xale ba dee ngay xeesal ëpp te lëw pëlëwlëw leese ko yëglekaay ne lu mel nii de kenn mësu koo gis xoolal ma fa nga xamante ni fa la Ousmane Sonko nekk di suma fiñ toll ni tembe jaxasoo na de jaxasoo ko doy waar kay yëgle kaay gi ne ma fulu total les échos ko xamle njiital suma mii day bu wattuwul mbir mu yéeme te doy dina ko fekk ci mbir mi te enquête ba nu fa amal ah docteur yekkate waxoon leer xoolal ma bi la docteur Ousmane Cissé moom day nee raxasu na laa la wax ba set wecc ci mbir mi moom day nee keroog ba Ousmane Sonko entré ci hôpital beeg nëga ni mësul yëkkati benn yoon loxoom te ko Ousmane Sonko cee tëtëtët amul benn membre bu ko traité moo ndax loolu mën naa ne médecin clinique ba yëkkati seeni kàddu ne ñoom day mënuñoo am accès ci ki xamante ni moo di Ousmane Sonko mooy yow mbir mi wóoratul wóoratul de moo di affrontement yi am mani ca mi njoon naa yëgle kaay gi ne ma ci talaata bi démb laa la wax ubbil yéene kaay bi xale yi élèves yi ak sandarma si sànnante yëgle kaay gi ne nervi yi bokk ci coow la ni combay raag ba metti loolu waaye nag mujj na rax ma ne xeex ba kay du woon nit ñi kese jekk na jekk rek ñi nga xamante ni ñoo di yamb yi génnee ci àll ba àll bi njoon bi rek sam sandarma kafe café balaa neex saf jar revue de presse du jour ko xamle la yamb yi ci jëmmi boppam sam leen sam leen ban replié wu daw laa la wax xeex boo xam ni ñëpp a ngi ci biir yëgle kaay gi ni ma les jeunes les gendarmes et les abeilles muy yamb ya te kat li ma ci jaaxal mooy yamb yi gone yi da ca sandarma sa lan dem bés bi ni ma ci li xew fan yi kay waa Benno Bokk Yaakaar jóg nañ fipp nag ëpptalaw ñoom day nee ñu dañuy porter plainte Ousmane Sonko képpiliw day nee la ñu koy toppee du leen lu dul assassinat maanaam faat ba kenn leen fa yëgle kaay ni ma waa Benno Bokk Yaakaar kay ñi ngi ci gat sa gat sa gu saf sàpp laa la wax vox pop ni ma loolu dee tax ñu bëgg ko yóbbu ci yoon ñoom day neenu la ñu koy toppee du leen lu dul complot d'assassinat yëgle kaay ni ma arrestation yi dee nga mel ni tulleeg màlle kaay ma wax la ka nga xamante moom mooy borom clinique suma bii waaw suma assistance ka ko moom di wuyoo ci turu docteur Babacar Niang moom day arrêté nañu ko sandarma saako jàpp ak ordre d'arrestation bi lee kaay ma wax la ca kan la le maire de Kër Massar sud kooka Mohamed Bilal Diatta lay wuyoo Jal de yëgle kaay gi ne 247 personnes fa jàpp moom Ndakaaru Njaay ñu féete ci wàllum njàng ak ay jàngalekat téetéetéet gerew yi ci école yi lée mbaa na saxal sunu njàng mi le bés bi la jour yëglekaay ni ma moom kay yémane te doy waar intellectuel yi day neeñu njitum réew mi na dellu si waat ci la raison dëgg day moo njëkk te mooy mujj am na ñaari député yi France yu commencé dànkaafu nag ministre bi gàddu wàllum étranger yi nee naa day daw waaxu wuti ca wéqu jiital ga yëglekaay gi ne ma kan u yi Sénégal ak Mali fës see ne ne espoir a dellu si na attaquant gaynde yaa ngi noonu bég nanu lool ci gisaat ko le record kaay ni ma anakan mooy góolu ci match boobilee diggante Alfred Mori ak Seny anakan mooy góolu ci match bi dox ci diggante askan sunu gaal ak Mozambique Aliou Cissé day yëkkati ay kàddoom ne choix ak Tony Silva mi nga xam na lépp Tony Silva ngir mu tànnal nu góol bi war a taxaw ci sunu kaa yi jóge naa ci weq jiital ga de dem naa seeti jaggi ga sunu lamb yëgle kaay wax la nga xam ngir napp sa morom Lac de Guiers moom day ne munta waane ci lamb Siteu ni moom am na rigueur ak courage yu daan Lac de Guiers 2 moom nag nee combat vengeance dëgg la kamuy vencé moo di ndijaayam ji di Yékini moom la muy fësal xamle ko moo di ana moo tax lamb ji ba nëgën a am vaar lay laaj ci lamb ji <laughs> café de balaa neex saf jaar wax nga dëgg de sëy laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue Diouf jërë ngeen jëf jaa ngeen jëf mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi kaasu kafe yi nanu ko tël naan mën naa am man naa am suba nu woor gan nga dikk na <laughs> na ñëw ci jàmm ak salaam nu teertu ko ci jàmm ak salaam ànd ak moom ci jàmm ak salaam mu noppi nu gunge ko ci jàmm ak salaam kenn bañ a manqué kenn bañ wopp ñi ko man ñëpp yàlla def ko ñu def ko waaye itam koor gi di wax rek ni képp koo xamante ni yàlla dogal na nii tamit euh, sa loxo macha allah weesu na sa ginnaaw maanaam am nga lu ëpp sa sa sa sa la ngay dundee nga compal ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ngir rek euh, nu man di ndogu ndogu à l'aise nga am na ci ñoo xamante ni wallaay dañuy woor ba ngoon jóg daanaka lu du ndogo da leen di tëx kon ñi mën a jàppale ak mën a dimbalee nu dimbali ñi nga xamante ni ñoo ko yittewoo waaw euh, Serigne Saliou daan na ko wax naan di leen sàkk sarax di jël di ko jox ña ko yelloo waaye nag réew mi léegi bu ñuy saraxee ñi am ba noppi la ñuy jox maanaam maye ñoom dañuy maye bu ñuy maye ñi am ba noppi la ñuy jox waaye maye nag ka mu waree ak ka nga war a may mooy ki nga xamante ne loxoom jotul ginnaawam eh, kay ka ka yorut kooku nga war a dimbali bu ko defee nga am ci yàlla waaw am ci am ci am ci àdduna am ci lépp waaye di jël rek di jox ñi riis ñuy gën a riis ñi pauvre toog loolu musiba la mbaa ba kumba kon nanu leen jàppale bu baax a baax a baax a baax waaw ci kan laay wax mineur bi fippu tëb balkon étage nii trip ci suuf ndax bañ ki ko yoole ci moom laay wax wala ci yambar mi nga xamante ni dafa amub ñaareel bu yàggul dara mbay ah! Ah! waaye lii nii rek lañ koy wacc ah amab ñaareel bu yàggul dara dara dara dara dara ne ko fi ñuk ma deen ca aawa ba lay dem mm, mm, mm, demul ca aawa ba mu wàcc fa aawa ba waaye kii kii kii moog sàcckatu silib ya ca Thiès est-ce que est-ce que sore nanu ah question la est-ce que moog sàcckatu silib ya ca Thiès sore nanu ni fi ñukk aawa bi dem ti rakki aawa bi rakki aawa bi ah Cheikh moom wiyoo la ko nii ba fukki atu kaso fekk ko ci mu dem tëddi waaye wàcc fi ñaaralem bi mu yàggut a takk wàcc fi awam bi moo tax lu bon boo koy def lu bon boo koy def amu résultat bu baax ve amu ci vrai nii résultat ve nii amu ci x rek wàccaaw ah nees di defee loolu ah nees di defe loolu rek senegal kaa fi nekk yëpp kenn mënu koo topp boo ko bëggee topp da ngay sonn say mbokk sonn lii heure bu nu xëyee di ci wax Cheikh Bamba ñu ngi nee na ma faal ah ku baax ki Cheikh Bamba ñu ngi nee na ma faal li ne ci réew mi yëpp kenn mënta wax lépp man yéen ñiy wax dama leen a yërëm waaye wax na dëgg wax na dëgg chaque jour koo reewee rek am na ay nouveau dossier ah man daal jommi naa man saa suñu yeewoo rek gis dossier yu bees tàq lii nees la ko nit mën a defee waa gone gi nu jël di ko di yaram moom yi di ko xeesal nag. mooy ñun dañoo mën a wax lépp ñuy jaay seen bopp nag waaye gis nga man xaaral ma xelli kafe gi xaaral ma xelli kafe gi te dem lii ku ko bëgg a wax nu nu téel a kat ah fu nu jëm anoon fu nu jëm ah, ah! baax na <laughs> yam yi dugg ci guerre bi nag mu jigéen baax na ñu jot a commenté démb nag ñu ngi jéggalu yéex nañoo dugal revue de presse bi trop trop trop ah, booy xool ay 17 heures ko dugal ñu ngi ciy jégalu bu baax waaye teewul njàmbaar yi seetaan ngeen ñu ndeysaan Poulo yaa ngi ci biir maa ngi lay bëggee bu baax a baax kontaan naa ci yow Cheikh Omar Diop nuyu naa la Lahat Diop Lahat maa ngi lay bëggee Omar Fall maa ngi bëggee ji bi baax di bëggee Aboubacar Daabu ndeysaan ak lu mën a xew dina dugg commenté moom it di bëggee Dame Kunta di bëggee Diagne distribution Asta léegi moom yow it euh, euh, yaa ngi ñëw chaque jour kontaan naa ci yow El kenn du yow ci man ñaa ngi sama xarit Aliou Ndiaye maa ngi koy bégg bu baax a baax Mamadou Diouf ak ñi nga xamante ni xëy na dañ koo toog toog toog toog gisuñu ko bëgg nañoo dugg commenté te commenté wuñu ndax dañ koo yéex a gis 17h la dugg maa ngi ciy jégalu bu baax a baax ci retard bi di nuy ñëpp ñu ñuy teewlu nag prix boor baboor bàyyiwuma fenn fépp waaye nekk ci réew mi ak bitim réew maa ngi lay bëggee ca Gosaas Kurasmaan Ngunjaan ah Kaolack Ndangaan bàyyiwuma fenn fenn fenn fu waaye nekk rek bëgg naa la te ngeen bàyyi sànnante xeer yi ah te taal ndogu yi. mi nga wax ba subaak jàmm jërë ngeen jëf